dëkk bi bu ñu xoolee li fi nekk bu ñu jëlee exemple rek Touba ci kanam daaw ba mu daaw jël ren daaw li mu fii def mi nga bëgg a mat te kenn ku ne 1000 francs la mu joxe ko bu ñu million yi nit mu nekk 12 milliards te kon bu taalib bi yëpp màgg ko woon fi ñu nekk waxuma ñu dëkk di fenn ci àll bi sax waaye dëkk bi rek. bu ñu newaat kenn ku ne la joxe cinq mille kese di ko na ko joxe bu ñu noppee bu at mi jeexee danañ mën a am loo xam ne fu docteur danañ ko mën a dindi bu amee jafe-jafe dana ko mën a bu ko defee li nga xam ne état a def ñu bàyyee ko état xëy na am nañu ko man waaye état a seen ndax defaru yoon ko man ñoo ko gën a man muy contrôlé ko yeneen yëpp yi nga xam ne état moo ko war a def ñu bàyyee ko ko waaye lenn li des nañ defal ko sunu bopp jàpp ci dana tax li ñuy def mën a sotti te loolu kat lu man a nekk la ndax ni mu ko waxee léegi mag ñi fi nekkul nañ doon noonu rek la bi ci gas bii muy jógee Njaaréem bi ñëw Touba dañoo woo kilifa yi ku nekk ñu sasale ci nangam ku ne sa maam bokkoon na ca loolee joxe ay nit ñu def raay bi nee na bi ñu waxoon ma ak si nañu ko jiitu nañu waxoon mu baaxee ni gën na koo baax kon fa tabarakallahu nan walee demee woon ba léegi ni mbir yëpp mën a dem dañ jéem a góorgóorlu ci doxee yi gën a xoolaat suñu bopp gën a am taxawaay waaye fii ci ëpp noo koy defal suñu bopp te mën nañ ko itam nag amul dara luñu tënk kon nañ ci góorgóorlu noo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant chef service yi taxawaay yi rafet na dox yi nga rafet na li ma ci waxaat rek lépp mu ci la loo xam ne koo ko làkk daal réseau bi nga xam ne moo jógee daaru maanaam ñëw ci dëkk bi fii te yàq ma may na coono may def la coono ñi nga xam ñoo nekk ci suñu bopp yu bari boo ko fa gaar ba ba fa ngay ak fii ci jumaa réseau boobu daal baaxu ci barki dem wax naa ko waa ay nu rahim ñu ñëw fa daje fa ñoom ñëpp bool nee nañu xamaguñu fenn fu ñu mën a amee teew bu jaar foofu bu mën a alimenter kër yooyu te kër yu bare na yu kilifa yoo xam ne bala ñoo am ndox oto lañ leen di jox daaw am na kër yoo xam ne yi oto lañ leen jox nga xam ne dañuy joxe gaz la doo ko mën a am ndox loolu defe naa mat na xool waa hydraulique waa OFO ak waa Maou Rahmati ñu bokk xool réseau boobu xool ba xam. fu mu jaar ak la ak lu tax am lii yittali loo xam ne yu am solo la ñu ñu far di wax maa ngi leen di gërëm di leen sant wa